ci yenn kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye élage Ousseynou Ndiaye dal leen a jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom lañu xëyandoo jamono ji nag picca moom boppam fu ko neex dal yéenekaay bi di Les Échos di ñu xamal ne kay jamono ji nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew di Abdoulaye Wade jamono ji ma nga mi ngi fi Guinée Conakry waaw Abdoulaye Wade kay ma nga Guinée Conakry moom Wade moomee lan lay def Guinée Conakry ak lu man di xew yéenekaay bi di ñu xamal ne ki nga xam ne nag moo di activiste malien bi nga xam ne nag moom la ñuy wax Ousmane Yara waaw moom activiste bu am xaalis boo nga xam ne nag ràññee nañ ko lool ci àdduna bi moom moomee bokk na ci ñi nga xam ne

Camara moom tamit yëkkati na kàddu ngir wax ak ki nga xam ne moo di Ablaye Wade ba mébét bi nga xam ne amoon na ko ngir mu daal di dellu ginnaaw Aziz bu Mauritanie waxtaan nag moom moo di Ousmane Sonko yéenekaay bi di ñu xamal ne moom Sonko Sonko bi kay mi ngi woon fi nga xam ne moo di Vélingara jàll fi nga xam ne itam moo di Kédougou foofee itam Ousmane Sonko askan wu bëri ñu ngi nekkoon foofee di ko xaar bu dee Macky Sall nag dem wàcce Thiès wàcc na la wax wàcc na ba zéro foofee nag fa la jaare mbi fa foo rek nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ci ay kàddu yoo xam ne Macky Sall yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xam ne itam moo di borom Thiès jamono jojee université Gaston dafa wàcc laa wax dafa wàcc di daw di wan na jamono ji maanaam condition bi daal dara sikku Serigne Djily Mati Lay di doom ci Serigne Sidi Makhtar Mbacké jamono ji nag mere na bu baax politiciens yi nga xam ne ñooy yeewoo ci diwaan diwaanu njaareem waaw moom sëriñ Jili Mati lay dafa jàpp ne politiciens yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci njaareem waaw jamono ji nag dañoo ko doon amal ci jurbel sëriñ bi diñu xamal ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ko fi metti de ndax bi nga xam ne Macky Sall ñëwoon na fi nga xam ne nag moo di jurbel liggéey yi nga xam ne diggoon nag fa amul lenn loo xam ne respecté na ko ca loolee ci dañ ko waroon a laaj stade bu Mbàkke wàccoon lamb ju mag ne nag moo di Fallou Diop bu waaw Fallou Diop moo woote woon maamu ju ay kilifa yoo xam ne bàyyi ko woon nañ fu nekk ñëw fekk wax Kéba Kanté combat ci diggante noiro ak américain waaw lambu ji ca ndaje ma bu baax bilan bi nga xam ne Macky def na ko ci Sénégal waaw Fallou Diop ne jamono ji Macky li mu def ci Sénégal daal ràññee nañ ko lool ab liggéey boo xam ne def na ko ci Sénégal Fallou Diop daal daal di song ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci ko jege di leen xamale nañu bàyyi tooñ yi nga xam ne moom la ñu nekkee